ñu gën a yaru ñu hmm. gën a xoolaat seen toogaay ñu gën a defaruwaat hmm. parce que nag am réew yar moo koy jëmalee kanam Sénégal dëgg la ay mag ñu baax tëdd nañ fi nekkoon nañ fi jaar nañ fi mais bàyyi nañ fi loo xamante ne tey jii buñ ci jafandikoo rek mën nañu gën a jëm kanam parce que tamit réewu Sénégal royukaay ci Afrique hmm. ci Afrique royukaay la réew yu bëri dañu taxaw di ñu xool di ñu seetaan parce que li ñu yàlla may kon nag nañ ci jariñoo te eh, xam ne comme li nga wax sànq rek kàddu bal la boo ko génnee rek dootoo ko mën a defaraat te itam baax na saa su nekk rek balaa nga koy génn nga remuer la langue sept fois li naan juróom yoon nga remuer ko la langue dans la bouche balaa ngay li ngay wax ñi nga xamante ni itam c'est vrai mu nga wax sànq rek ngànk nañu nguur gi ay ndaw la ñu góor góorlu rek te bàyyi xaste saaga yi tontute que ku tontu du foro. waxtu tontu bu jotee boo ko tontoo rek ñëpp déglu la mais tout le temps ngay wax di wax bu yàggee wax ji sax day bëggee soof. kilifa du gaaw wax kilifa mooy mujjee wax. Mhm. te ki ñu teg ci boppu réew mi macha allah ah li ñu ko gisagum ko am yar la jamaay moom macha allah am na yar am na teg ba pare itam defe naa bu ñu xoolee ci moom rek lu baree bare dinañ ko moytu nekkatuñu ci opposition bi ñu ngi ci ngóor gi nañu defaruwaat.

gi maanaam euh, euh, euh, nga fexe wane sa bopp te dafa bari loo xamante ne ñëpp dañ koy wax te te ku nekk du wërta wax mhm. oustaz du ñëpp ñoo war a wax mhm. wax dafa am ñoo xam ne ñoo yor kàddu ku wax ak ñi nga xam ne dañoo war a noppi waaye fii mu nekk dañu dem ba réseaux sociaux yi ñoo yàq réew mi réseaux sociaux yi moom dafa laaj ñu gën koo réglementé buñ ko mënee nag parce que loolu moom wax dëgg yàlla buñ ci defoon benn buum bu ndaw rek fu mel ni ay réewum Chine yooyu mais am na loo xamante ne ñi mawuñ ko dañ koy maanaam dañ koy saytu. jot na nag ñu defaat ci saytu bu baax a baax a baax a baax parce que euh, luy raam tamit jëm na ci ñag bi ba pare de nañ ko jéem a stoppé foofu daal di gën a avancé defaat beneen buum boo xam ne Sénégal day gën a jëm kanam rek oustaz. amiin. <laughs> en tout cas c'est c'est important c'est important léegi nag euh, euh, les armes sont déposées à terre. Il est temps de prendre la pelle et les râteaux pour euh, justement bâtir le Sénégal. Mhm. te nee nañu euh, ci nouvelle euh, réforme yi wala ci li ñu yaakaar moom mooy bay dundee bu ñu ci bu ñu ci suuree rek incha allah danañ mën exporter exportation boobu mooy mën dimbali Mali dimbali Burkina commençons déjà par nos pays voisins nos pays cousins même je dirais je j'aimerais dire et à partir de là di ngeen gis na ni autonomie dina am que ce mhm. soit financière que ce soit tu vois xam nga tay bo ne nguur gi ni ñu ne la scandale yi fi am yeb ci walu finance euh, ci euh, gestion euh, finance rewmi bo ne ñi mën may xalé yi kër hmm. mënuñu ko ñoo leen di tek luñu attanu té lañ fi fekk doyno hmm. hmm. war doy éveil et conscience démocratique conscience républicaine moins que sama d'accord war na ma mais c'est-à-dire on attend toujours ce que l'on nous doit mais on ne gère jamais moment ce que l'on doit à notre patrie nous on doit tout au Sénégal mm. on lui doit notre existence notre nationalité vous savez que Boy dem ci relations internationales, ngay naan euh, asile asile apatride am na am na ah. ñoo xamante ni seen de da leen dàq du amatuñu nationalité une ah, ah. dañuy dem langaamu ci benn réew mm-hmm. ñu def asile apatride pour réew moom jox leen seen nationalité. Mhm. waaye Sénégal defalagu ko benn doomam. Mhm. Ah, mhm. kon nag Sénégal gàcce nga la moom. moom mi gore ba heure bii. mais ñun ñu gore. ndax ñun dañuy jaar jàll rek. ñoo ngi fiy dégg chaque jour bu ñu xëyee dégg inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. du dëgg chaque jour ñu ne macha allah doom ji judd na doom bu góor la. aha du dëgg. waaw léegi loolu nag bu ñu ko xamee rek delloo suñu xel ci ñaar yooyu rek. je pense que gàtt na. pour nous, ñu fàttalikuwaat ñun tamit devoir à suñu patrie hein, ñoo dox di saw ci mi di di tufli ci mi di di fait civisme je pense que dañ ko ci parce que c'est normal c'est un réflexe qui doit être normal mais bon, ba ñu le civisme c'est grave civilisation ah maman le voilà national da ngay taxaw doo bouger buñ la koy jàngal c'est parce que tu n'as aucun respect pour ta patrie Mes problèmes, ça sax mooy national xam nga pay tey boo ko tari c'est-à-dire que jot nañ ñu jël ko di ko faram-fàccee wax leen nit ñi li nekk ci biir mhm. am ñoo xam nañ koy tari nii rek dem taxaw mais après duñ ko respecter, respecter charte yi nekk ci biir asma moo ëpp solo mhm. mais pour ñu respecter ko tamit il faut ñu xam ah, explication mais wax ci am solo. am nga xalé par exemple vous avez ne tous vos corps, les par wax moy la que vous moy li ni motax ñu def ko. Mhm. seigneur bu ngui koy bind ci ak ak mhm. vrai comme tu dis hein dafa am solo. parce que lu mu xamul tamit. non mënu ko respecter très bien mais dafa mel asma mo tegal alcorane rek. niko jangal mu jàng ta xamul lu mhm. je pense que sax asmatu xadija uh-huh. mais surtout li mu souligné man nañ ci bàyyi xel ay taxaw di tuur ndox ci mbedd uh-huh. sa jël xaax tëf uh-huh. baadoola rek a koy def bilaay oustaz xaax tëf moom kuy baadoola moo koy def Cheikh Hadj bu daan bu daan bu daan bu daan génne lor day sëgg ba ci suuf wàqi ba mu xóot suul ko ndànk suulaat asma mais léegi léeg nit ñi fin sànni ah. mais xoolal salte salte googu mais man Moussa Aïda doxuma la benn karapit euh, benn waay xaax ni tuf di sama kaw ma damaa tiit sax. Eh, baal ma baal ma ma ne mais mais mais lii lan la tamit. moo tax yooyu en ah. mais asma yooyu noonu je pense que am na loo xam ne nguur mënu ci dara. Ah, nit moo ci mën dara surtout xoolal benn kaas nga bokk koog ñaari nit. naan jox nit mu naan kaas. Mm, wallaay ci jamono ji. ci benn kaas ci jamono ji feebar yi dafa bari. civilisation am na solo nit da ngay jékki-jékki di aar sa bopp. ci wàllu set. Mm-hmm. boo gisee yonent bi an nazafatu minal iman set ci ngëm yàlla la bokk. Mm-hmm. jullit bu setul gëmoo yàlla. dëgg na mm-hmm. salte baaxul nit da ngay set waxuñu setu ginnaaw. wallaay da ngay set. set waaye boo sa sa sa xol nag mooy njëkk a set avant tout. Mm-hmm. xol bi na set ba pare. dëgg la mm-hmm. xol bu setee rek lépp set. xol bi dafa jafe pour mu set nag asma. yàlla nañu yàlla dimbali ba suñu xol di set. ñuy accepté di nangu. allahumma amiin oustaz. surtout c'est très important. am na sànq maa ngi wax affaire euh, kër yi xam nga état du du maye kër. état day tabax. logement yo xamantene askan wi dinañ ci mëna accès manam di accessible lo xamné supposons tay di ba logement sociaux nga né weer bu nekk kat cinquante mille wala soixante quinze wala cent mille ngay fay. nga nga né li ak li format bi lay am format bi format bi. Mhm. mais maye mom du yom parce que le monde monde bi dafa dox. té fi mu nekk ni tollu nañ fo xamantene accompagnement rek mo ci am solo buñ ñu leen accompagner ci lolu jàppale ci askan wi yaakaar naa ne dinañ yombal lu baree baree baree baree parce que fii mu nekk nii li xot askanu Sénégal dafa bari rawatina nag dëkkuwaay. na nit ñi di nangu aussi di génn di dëkki ci àll yi. voilà parce que dëkk dafay màgg. Mhm. seen Dakar moom moom dafa xat Dakar c'est fini dafa ah. xat. mais ñu ñu ñu toog parce que euh, euh, ndeysaan euh, je me rappelle bi ñu doon tabax ay ñoom si ak yooyu suñu pape yi nekk ay fonctionnaire mais dañ leen dañ leen wax fii sori na soriwul. mais dañ leen doon forcer kër yi ñu jël ko. Mhm. parce que ay kër la loo dëkkuwaay la loo xam ne nit ñi dañuy màkk mhm. même parcelle Assainies gi bi ñu koy def dañu naan dafa xat dafa dafa dafa sori dafa sori animu tey. Mhm. léegi ñu ngay wax jaxaay kër Massar. la la la la waxatuñu proche banlieue la mais banlieue bu gën a sori. te nit ñaa ngi fay dem di tabax ay kër. kon ñu góor góorgóorlu ci rek foofu moom vraiment. bu ñu ci taxawee rek. woyefal ko askan wi rek defe naa ne lépp luñu bëgg ci réew mi bu soobee yalla dinañ ci and ak ñom parce que fi mu nekk ni xalé nak dañ leen jox bop ba pare té baña luñu leen dara dara dara luñ ne ñew leen ñu japp ci rek ñom it dañuy ñëw jàpp ci parce que da ngay nekk ci kër sa bay ñu juddu mag vraiment jang am ay lijaasa mëno def dara mëno japp ci dara lool dafa metti ci nit ci gor dafa metti mais nak euh, am nañ yaakar ne vraiment yaakar mom yalla bu mu tas kon yaakar bi ñu am ci ñom yalla suñu borom bi jappalé leen ba ñu réaliser li nga xamanteni ni moo seen projet seen objectif yu ñu taxawal fi ci réewum Sénégal asma merci beaucoup maman ak oustaz waxtaan wi am na solo waaye faw nag tamit ñu dugg ci rubrique yi fa tubaarkàlla macha alors euh, euh, oustaz quels sont les proches euh, qui devraient euh, quels sont les proches euh, qui devaient leur

boo ko jëlee ci côté ndijaay côté bàjjen côté papa yooyu yëpp ay mbokk la waaye boo ko boo ko yaatalee ba mu yaatu mooy ñëpp ay mbokk lañ ci biir mbokk gi nag dafa am ñoo xam ni da nga war a rafetal sa diggante ak ñoom ba mu rafet parce que kër gi mooy njëkk a baax ba pare fexe ba kujje du am ci biir mbokk gi parce que yàlla dafa fonk mbokk boo dégg doo dégg ñu naan ñu ñëpp dañoo bokkoo ci aadama ak xawwa benn lañu yàlla moo bind aadama rocci far bi bind ci xawwa ñu ni lu tax mu bind ci xawaa parce que dañ ko bind ci luy dund ba pare bind ko ci faar bu dëng moo tax ñoo naan jigéen dafa dëng parce que ci lu dëng la jóge boo ko jéemee jubbanti sax damm te damm ga mooy fase moo tax dangay nangu di accepter di muñ ndëng-ndëng yooyu nga xam ne moo nekk ci ñu jigéen matul ni ko yàlla bindee lu ko bindee te yàlla nag subhaanahu wa taala moo programmé kenn ku nekk ak askan ba ngay juddoo bu doon yaay yaay yaay tànnal sa bopp askan boo bëgg a juddoo danga naan yàlla naa juddoo fii kenn ku ne judd nga ci askan boo xam ni tey soo sañoon askan boobu doo ci judd kenn ku ne judd na ci askan boo xam ni tey yaa ngi naan yàlla bu démb doon teyaat du ma regretter lu ma juddoo ci biir askan bi askan bi dàkk ci askan yi nag mooy askanu islaam ñu ànd bokk ndey ànd bokk baay bokk benn bëgg jàppante te di suturaalante ñaareel ba mbokk asma mbokk dafa am solo gis nga bu ñuy takk nit di ko xutba ca jàkka ja bokk na ci aaya yi nga xam ne dañ koy xutba mooy yàlla danaa na ngeen ragal yàlla mais na ngeen sàmm mbokk gi na ngeen rafetal mbokk gi moo tax jot na il est temps que bu ñuy maye nit sax ñu indi leen ci jàkka yi teg leen ñoom ñaar ñëpp wax leen yan devoir moo tax ngeen war a mën a ànd ngeen nekk benn lu tax yàlla boole leen pour ngeen sëy fonder famille fondé foyer waaye bànneex taxul yàlla boole leen sëy nag dañoo jël bànneex teg ko ci kaw mais jaamu yàlla la lu ci neex jaamu yàlla la lu ci naqari jaamu yàlla la jaamu yàlla benn neexul julli neexul koor neexul nat azaka neexul ah aji màkka neexul amul benn jaamu yàlla bu neex kon sëy mënul neex mm-hmm. xëj na neex neex bi booy am bu weesee lune de pare nga ci ah, ah <laughs> bon yem leen ci lune miel te boo leen demee lune de miel bu leen ñibbi. boo weesee lune de miel li ma sama benn xarit di wax nee na moom moom ba mu jugee lune de miel la gëj a xam luy bànneexu sëy. jigéen ñu bari dañ koy yàqamti lune de miel. te pourtant yaa ngi naan lune de miel stress ba nga cay daj sax doo ko.